bali sëy ma rendre hommage encore parce que kuy wax lu baax doo tàyyi di ci conseil bali sëy maa ngi leen di wax ni doomu askan bi ngeen seen yaay ci askan bi ne seen doom yi ci askan bi leen ne seen sœur yi seen raq ci askan bi leen ne dara gënul metti Macky Sall yokkal leen salaire pour lan rayal leen ma askan rayal ma rayal leen ma seen yaay rayal leen ma seen papa rayal leen ma seen doom loolu leen Macky Sall fay Macky Sall fayalu leen bu ngeen di kontaanee bu ngeen kontaanee yéen a ngi ci yéen a parce que Macky Sall daf leen fay am nga rayal ma sa papa fay la nga rayal ma sa rakk am la nga rayal ma sa askan ak sa famille Macky Sall loolu la leen fayee ngeen xam ko nag Macky Sall fayu leen pour ngeen ray Amadou de Macky Sall fayu leen pour ngeen ngeen ngeen ngeen kii ko de Macky Sall dafa jël Amadou làq fële Ousmane Sonko ñun Sonko xeexlawul kenn Ousmane Sonko génnewul kenn Sonko newul kenn défendre yàlla moo ko fayee ay nit ñi dëgg ñu koy xeexal ñu koy défendre la dafa Ousmane Sonko du jël ay mala yu deewul di leen suul di ko sacrifice ñi koy def moo tax yàlla toroxal leen am baat ci réew mi ba ba ñuy que doomu jullit lañu fii lu fi waay di def guddi bu bër si tëjee yàlla weer na ku dem bay suul mala bu deewul oo nit nit rey nit ku dee dalay yomb moo tax yàlla di leen toroxal un à di jël gouvernement ci ay fitis di dox ji gouvernement ay ci koy dee ana ñi dee police yi ñoo leen rey gendarmerie yi ñoo leen ni toroxal yéen ñi dee gendarmerie yi ñoo leen rey te Macky Sall la ngi def loo xamante bëgg a loo xam ne doomu Casamance waru fi falu doomu Casamance waru fi nekk tekki fi dara ndax doomu Casamance ay robet nañ Macky Sall yow yaay robet bu mag bi yaag sa gouvernement yéen robet bu mag bi parce que yéen askan bi gendarme yaa ngi rey xale Macky Sall yow yaa rabal bu mag bi plus et double yaa sa fen yi ngeen bëgg a génne ci deru Ousmane Sonko ci ay rabel ba ba ngeen delloo ko fi ngeen ko jëlee woon seen fen yooyu toj na bu yàgg fen yooyu na ngeen ko jëlee fu ngeen ko na ngeen ko delloo boobu du dem parce que complot aji cagas Rabi Sarr jeex na abi caga Rabi Sarr abi caga Rabi Sarr am nga loolu doy da nga doon complot pour ñu viol la jël nañ la teg la ci néeg di la xeesaloo di la violé guddi ak bëccëg yàlla teg na la mbugal googu yow doomu nit bu bon fu bon rek ngay mujje jigéen ju bon rek ngay mujje jigéen ñu baax ñaa ngi taxawaalu nii ci Sénégal njaay amuñu benn sens interdit mais yow da am sens interdit ndax lan sa jaay bopp ko yóbbee jigéen ju baax wala roy suñu yaay Aïcha nga ne ummu jamil ngay roy moo tax dugg nga ci néegu ummu jamil dugg nga ci këru ummu jamil ñun suñu yaay Sumayya nañuy toppandoo moo njëkk a dee ci lislaam ndax dëggu ndax gëm yàlla suñu yaay Aïcha nañuy toppandoo moo soxna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu yaay Xadija nañuy toppandoo moo doon suturaal Seydina Muhammad sallallahu alayhi di ko jox muy commerce jigéen ju baax noonu ngay def doon société bu baax di wane du baax mais jigéen ju bon mooy saraxe ay morgo jigéen ju bon mooy saraxe war a jox nit ñi lu baax war a jox jigéen ñi ñu sol lu baax war a wax jigéen ñu leen tekkiloo li ne ñu liggéeyloo takk seen seen jox seen i borom kër ku ci sa kër amul mu jox la waaye jigéen ñu bon yaa ngi dem di saraxe ay keesu néew te yàlla nañ jël néew bi def ci seen bopp ñoom moo tax jigéen ju bon mooy fat ku bon nit ku bon mooy fat ku bon moo tax aji saar ñu bon ñoo la fat yow di la tëddee kanam ak ginnaaw ñun kenn fatuñu ñun ñu ngi toog suñu peggu ndey ñun ñu ngi toog suñuy jëkkër ñun ñu ngi toog uuf suñu di leen yedd ci lu baax leen tàggat ci baax ñu leen naan yàlla nañu yàlla ci jigéen ju mel ne Adji parce que du jigéen ju yàlla gërëm jigéen ju iblis toroxal la abi raabi caga saam saa yoo ñu jox la sa toroxal jigéen ñëpp ngi seen wetu papa ak wetu yaay yow ñu jël la ngay jaay sa bopp ba dugg ci ci ci ci seen bopp xeesal la ba nga weex tëj la ci néeg doo dem doo dikk tëddee guddi tëddee bëccëg tëddee kanam tëddee ginnaaw ana Mamour Diallo ana Bouga parce que da nga doon jaay sa bopp tàbb ci ay góoru fayu bandi Ousmane Sonko incha allah yàlla dina la sàmm yàlla dina wan Macky Sall wan sama jàmm bi ko yor maa koy garanti jël ay ñaata garde rapprochée Ousmane Sonko yóbbu iñaan gu mu iñaan ba tey ak Ahmed Aïdara Ousmane Sonko géejawaay gi mu waroon dem tey ñaareel Ousmane euh, euh, Ahmed Aïdara nit ñiy topp Macky Sall euh, nit ñiy topp Ousmane Sonko looloo xëtt xolu Macky Sall waaye dina xëtt sa xol de jàppewu leen dara nag lu dul Ousmane Sonko dafa war a dem géejawaay mu jàpp Ahmed Aïdara pour Ousmane Sonko ba ñëw foofu xam na ni sàcc Aliou Pétrole Sall day torox toroon Aliou Sall day torox bu fa Ousmane di sarga ah, ah, ah, que nga yow nga ne doo raqu raqu raqu raqu jiitu li tubaab bi di ko wax du ma ko wax a di sàcc bi di mucc seen deret ba ñu ne fa ni ba journaliste bu am diine am yar am tegg ñëw jël sa poche ñu war ko ñëw sargal nga nga sa mag ngeen ne déedéet xaalis ñu dem tëj ko nëbb taraanga boobu mun leen nëbb taraangam da ngeen ni fenn c'est nga yàlla nangu teraangaam Ahmed Aidara gàcce ngalaama dangaa wax dëgg ba ba ba passé nekkoo journaliste boo xam ne dangay fen di redoubler comme TFM comme Sen TV comme 7FM yu may mën a dugg yow dangaa wax ba passé dem doon maire parce que sa askan ñoo fa yóbbu sa askan ñoo yóbbu ci nga nekk journaliste ndax sa askan di wax sa askan sa askan jël la yóbbu la maire Guédiawaye parce que lu tax yaa ko liggéey Ahmed Aïdara parce que da baax góor nga garmi nga jaam yëpp a ngi du redoublé jaam yëpp a ngi ci gouvernement Macky Sall di lekk ay milliards doon jaam doon doon dëmm rey la jaaleel ci askan tapet moo tax mu clôturé mbedd Ousmane Sonko nga xam nga ni Macky Sall yow Ousmane Sonko di nga daw laa la wax di gis parce que nga yow Ousmane Sonko góoru yàlla la battalim jaas ana xeex bi ana waa wàllu xeex bi ana waawal ñëpp war a génn xeex waaye ñun ku ñu xeexalul yàlla xeexal ku ñu xeexalul yàlla xeexal ñun ñooy ñi nga xamante ni benn bu xeexee mel na su junni xeex ndax suñu dëggu ndax suñu dëggu suñu engagement suñu dëgg dañ koy assumer suñu bopp ñun ay patriote lañu fii ku fi wooyee patriote doon jaam yaa xam parce que nit sa jikko rek ngay ngay wane ni nga juddoo yaroo ko rek ngay wane boo dee jaam jaam jooju ngay wane. soo dee rëy lan di di di mbali mbali mbali te doo génn parce que que noonu ko juddoo yoroo ko defe yaa nga say maam nga ko jëlee ñun nag suñuy maam gor suñuy baay gor suñuy yaay gor kon kenn du ñu gën a nekk gor ñu nag gor ba ba ñuy sàngoo suuf ñu nag diine gi ba ba ñuy sàngoo suuf ñu nag kaddu yàlla ba ba ñuy suuf patriote yi combat continué Macky Sall du am ba ba muy dee tappet ak ñàkk ndam moo tax muy génne police yi police yi nag leen di Macky fay na leen rayal leen ma seen yaay ak seen papa Casamance bee ray xale yi dina leen coûter cher parce que ka adduna dafa tànk keneen añu réew muy Ousmane Sonko wala keneen ñu toroxal leen loolu na ngeen ko bàyyi xel xale boo ko lebalee koy màggal même boo ko lebalee da koy deewaare te lebal ngeen xale Sénégal yoo xam ne dañ koy màggale doon rànki ñe te dinañ leen toroxal loolu na ngeen ko ko bàyyi xel fi fàtte xaju fi te Ousmane Sonko ku taxaw ne doomam génnul xeex kooku fenkat nga waa APR nga Macky Sall lu tax mu koy tëral Ousmane Sonko bàyyi Sénégal yëpp jël police yi dugg jóor ko kër si tëggoo gi xam na lu tax parce que la nagam ñun jigéen ñoo nañu mënul dawloo dinañ dawloo Ousmane Sonko Barthélémy Dias nag tapet moo tax mu jël ay policier teg ko fa leen yéeg leen waaye Barthélémy Dias góoru kenn du ko yem kenn du ko yem Macky Sall dafa am loo reeree mbir xale yi li ñuy xaar mooy laal Barthélémy Dias Ousmane Sonko maa la koy wax tey dëkk bi la la doon tóom te dinañ la pare loolu moom la ko bàyyi xel yaa ko a xam dafoo jël a jàpp yaa ak Macron comme yow Macron nga dégg déggaloo yàlla fraw na nga dégg bisimilah moo tax mu gëlu fraw dina wàcc sa kaw patriote yi dama bëgg ngeen ne dem ca buntu taxaw Youssou Ndour toroxal ko patriote Macky Sall nag diaspora bi immigré yi fépp fu immigré ne Macky Sall fu mu taxawati ci ci Europe bu ma am jàmm bu ma am jàmm ndax Sénégal duñu ko may jàmm ñu ci live yi ñu ci panel yi ñu ngi fépp Macky Sall bu ma mënoon rey sax man mi rey ma poisonné ma ma ngi may wër rek dafa maa gisagul mais bu ma gisoon mi ngi may poisonné mais dama la bëgg a xamal ni doo yàlla doo tus doo dara Macky Sall man yàlla laa gëm man asbunallaahu wa ni'mal wakiil yàq mu koy naan naas tawakkal ala wala hawla wala quwwata illa billaahi doomu aadama te bul xam lu yàlla di daane sa kaw pexeelal doomu aadama te bul xam lu la di bugale. Net Bi TV. ñun gëmuñu kenn ñun yàlla la ñu gëm ñun ñooy soldaaru askanu Sénégal doon soldaaru Ousmane Sonko di bàyyi faalu Ousmane Sonko te kenn mënu ci dara naa bañ nit na ko ñëpp a bañ waxoo dëgg c'est da